culture joola mu nekk lu am solo lool waaye tamit ñu fonk ko lool kumpo di ab tradition boo xamante ne fekk nañ ko fi seeni maam yi di ko daal di def naka noona saa yu ñu organiser ni ni day fekk am ñoo xam ne wàcc nañ yoon wi ñu leen koy tegaat walla ñaar ñu tongo wala itamit leneen cette fois c'est les jeunes de Kadiamor ñi nga xamante ne muy association buy boole bépp joolaa bu nekk fii ci Malika ñoom ñooy organiser ni ni ba tax na tey ji ñoom itamit sanction gi ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy waxambaane yu nekk ci association gi ni ñoom ñoo ko daal di waral. asalaamaaleykum wa rahmatulah eh, nuyu naa ñëpp ñu fi nekk maa ngi présenté man maay Sidi Lamine Diédhiou. Eh, di dëkk fii Malika eh, di nekk eh, président président di nekk président association bi nekk fii Kadiamor et Kumpo di présenté wu waa quartier bi fii yëpp quartier Joola Malika bépp Joola bi fi nekk rek bokk na si association bi donc waa télé bi ñu ngi leen di bu baax Eh, di kontaan si yéen bu baax si bés bi eh, si teewaay ba ngeen ñëw fii di teew si si si si bés bi donc ñu leen ñuy jaajëfal bu baax kontaan nañu. waaw culture bi doon na culture boo xam ne fii lañ ko fekk suñu maam yi fekk nañ ci fekk nañ fekk nañ ko ñi ñu koy téye donc buñ ko téye ñu ñu ñëw fekk leen ci tamit dañ koy téye rek waaw tey ñun ñoo fi nekk. bu ëllëgee tamit maanaam ñoo xam ne tamit ñeneen ñoo fiy nekk. culture bi nu mu culture Joola maanaam culture bi boo xam ne culture Joola bi eh, ñu ngi koy woowee ekumpo. ekumpo eh, maanaam loo xam ne si olof eh, kumpo la rek comme ni nga déggee kumpo la xamoo lu ci biir tant que duggoo ba ci biir rek doo xam lu mu demee waaw. loolu moo tax loolu moom kenn du ko wax kenn du ko wax nii publiquement nga xam ñu xamul ñu xam donc loolu dafa doon loo xam ne secret la. comme ni ñu waxee peut-être bois sacré la après bois sacré la moom moo si top donc lii nga xam ne saa yi lii euh, suñu cosaan la cosaan boo xam ne ñun bépp cosaan bu nu mun a am rek moom lañ si teg boo xam ne mooy suñu cosaan boo xam ne moom moo nekk si kaw waaw non yombul nag am ko yombul non lu war am bi nag maanaam euh, si kumpo bi tamit euh, dafa am ay charte yu mu yu mu yor am ay ay ay ay taxawaay yu muy yor donc taxawaay yooyu noonu su ko gisul maanaam si côté góor yi wala si côté jigéen yi eh, dinañ leen teg alamaan te alamaan boobu moo waral tey bés bi tey bi nii. sama am di jàmm maa ngi nuyu di leen ziar dañ jël seen wàccuwaay maa ngi nuyu képp fi ñëw teewu bés bi maa rafetlu bu baax a baax a baax en fait euh, lii dafa neex si si culture Joola bi en fait gis nañ suñu bopp lii ma wane nous sommes fiers d'être te tey moom dañoo kontaan lu ñu musul gis tey lu euh, ñu musul gis tey moom moom la ñu gis en fait groupe bi dañ kaa créé mu ngi tudd Kadiamor dañaa déggoo doom benn ñu nekk mag ak rakk boo gisee ñu xam te ñu def ñu lu yoon dañuy teg ay sart sart yi lañuy teg sart yoonu si la ñuy dox loolu moo tax affaire bi tey mu am si. Euh, je me nomme Abibou Bodian euh, le président de l'association de Kadiamor Sidi Lamine ki fi jógee léegi kooku mooy le président du Kumpo. moo tax il est le mieux placé. est que dafa am si yaa yaa am na benn côté boo xam ne côté jeunesse ak côté mythique la moom mooy suñu président moo tax il était le mieux placé raison pour laquelle mu tax du ci éclaircir si lu ndaw. donc association bi nga gis mooy ka jamoor ka jamoor ci olof mooy déggoo dañoo déggoo doon benn dañuy xàccandoo di dóorandóor mënut a ñàkk nag parce que ay nit bu ñuy ànd mun a ñàkk ngeen am tuuti ay kërël loolu tax ñu créé tur bi nii ka jamoor. ka jamoor mooy waaw doon benn. te association bi nag bon day œuvrer ci côté culture mais en plus côté social te wax dëgg fa yàlla ñu ngi tendre euh, ñu ngi woote si ñëpp ñu ngi ñu mën a jàppale parce que yem ñu si culture kese parce que ku ne culture wax éducation donc wax dëgg wax dëgg fa boo ñëwee fii quartier Joola quartier Joola la Joola yàlla Joola dafa yaatu yàlla buluf yàlla fooñ yàlla kalunaay maanaam yàlla Joola de Mandégan Balingor Catok Tëndu Kartiak ñëpp a doon benn fii Malika di xàccandoo di dóorandoo ci li ni mel raison pour laquelle tey journée bi nga gis nii tey boo gisee tax mu gën a mel nii booy nit jotee rek kumbo daf ñuy sanctionné. jotee genre ji par exemple tey par exemple man ak kii tey su ma ko romb ba mu mbéj ko ñu xeex kumbo bu yëg ko daf ñuy sanctionné te su ma sanctionné waaw li ay alamaan li mooy alamaan sanction des fois na ay fecc culturel yoo xam da ngay jékki-jékki nga organiser ko mariage mun na am nit jël kumbo mu ñëw feccal ko mais lii te c'est ñaata jours lay lay lay duré. deux jours parce que démb lañu fekk démb si guddi. ak tey bi lan lay signifié ak deuxième jour. bon premier jour c' est une de sensibilisation. pour waaw sensibilisation maanaam nit ñi war a mën a xam lii am nii wala li mun di am li tax ma sanctionné leen bu mu amati dañ cee profité nag sensibiliser les gens du quartier def un set setal def set setal bi nga xamante ne wax dëgg fa yàlla euh, cela va nous aider aussi tamit dans le côté social sur la propriété du quartier li ni mel quoi waaw. est-ce que tey jii eh, yéen am ngeen benn message bi ngeen bëgg a lancer par rapport à cela pour au moins yéen ngeen ngeen message message bu ñuy lancer tey message bu ñuy lancer Koumba sabari sabari la sabari sabari sabari sabari sabari. association bi comme son nom l'indique euh, qui dit Kadiamor dit entente d'ailleurs sax am na am na am na am na am na ay kii yu nga xamante ne président actuel inauguré na ko tuddee ko Kadiamor jubluwu si lu dul entente ñun tamit même but la ñu visé si suñu association bi donc association bi nga xamante ne la dafa regrouper les jeunes euh, de différents sexes en savoir les hommes et les femmes donc euh, pour une bonne entente euh, de la communauté et de notre quartier aussi. En fait comme euh, nu ko sama président waxee en fait euh, li tey jii sanction la concernant ñun ñun suñu aada ñoo ngi koy wooyee alamaan donc boo xoolee am na ñoo xam ne tey jii boo ñëwee boo comprendre aspect agréable bi ngay ngay gis maanaam fecc beeg ñoom seen oui donc mais dafa viser lu lu raw loolu comme lu ñuy naan joindre l'utile à l'agréable c'est-à-dire am na utilité euh, dans la mesure où day réunir am na utilité dans la mesure où day permettre tous les jeunes euh, de nootre quartier ñu dajaloo benn ngoon partager moment de joie mais aussi partager moment bi nga xamante ne muy moment de de solidarité en plus dentre euh, d'entraide mais aussi d'éducation aussi waaw am na solo bu baax tey démb lañ ko commencé veille bi mun nañ ne veille bi lañ ko commencé donc foofu benn annonce la en plus euh, benn yë yëgle mun nañ ne journée boo xamante ne préparatif la comme bu dee match mun nañ ne moo nekkoon échauffement bi démb si guddi donc euh, moom jour démb lañ ko commencé. mu nekkoon kii euh, maanaam veille bi ñu ñu ñu tàmbalee ko tey leçon si mun a tirer bëri na comme tey boo xoolee fu ne si si si si mën nañ ne sax euh, hors région yeneen région am na ñu jóge sax ñëw teewee bis bi nga xamante ne tey jii bis bu am am solo la si culture Joola bis bu am am solo la si communauté Joola moo tax Joola foo ko déggee la la ñuy dàkkantale euh, daa gëm service ngeen baal si terme bi euh, Joola dafa dëggu dafa kii c'est à travers ça la ñuy jàllale message yi c'est à travers ça la ñuy éduquer ba doomu Joola foo xamante ne fu mu dem dañ koy nawloo dañ koy fonk bu baax a baax a baax. am ñu jóge sax ba Casamance. Mhm. am ñu jóge ba Kër Mbaye Fall am ñu jóge ba feneen ak feneen. Mhm. suñu ay mbokk suñu ay soppe suñu ay xarit loolu tax tey bés bu mel nii bés bu xewee rek. Mhm. fépp Joola nekk rek da koy yëg. te bu ko yëgee bu nekk gàntu amul bu ko yëgee dina ko jaay ba keroog muy egg si. message bi mooy eh, boo doonee Joola tamit te boo xoolee nit bu nekk xeet bu nekk rek am nañ cosaan. day yomb yow nag boo nekkee joolaa xamoo sa cosaan rek dafa am lu la manqué waaw. le dernier message mooy damay woo sama sama sama mbokku góor ñi jigéen ñi sama mbokku association yi ñu gën a jàpp te xam na lii c'est pas évident am na quartier yu ko bugg yu bëri amuñu ko yàlla mu def ñun ñu am ko ñu am déggoo bu ne suñu biir tey jii mën naa ne luñ fi dépensé bëri na torop torop torop torop mais alhamdulilah parce Euh, njëriñ bu mu ñuy apporter moo ëpp fuuf maanaam lu ñu si dugal donc euh, message ki jàppoo la en plus di di woo di di di di ñaan aussi yàlla dooleel ñu yàlla jàppale ñu yàlla jàppale ñu aussi ñi nga xamante ne ñoo ñuy accompagner à savoir suñuy mag suñuy parent aussi ñi nga xamante ne tey jii lépp lu ñu bëgg suba ma ngoon ñoo ngi siy taxaw xam nga pour ñu. pour permettre ñu ñu mun a def tout en toute liberté suñu suñu activité ba mun ko réussir si jàmm ak salaam. ganaaway kàddu yi nga xamante ne jëlee nañ ko ci ñoom ñu mën a xam ne importance su festivité bi ne amul leneen lu ko waral lu dul juboole maanaam ñoom ñëpp fépp foo xamante ne doomu joolaa mu ngi fa bu déggee bis bile war naa bàyyi lépp lu mu jàppoon ñëw fekkee ko ca loola ñu bari ko organiser at bu jot walla sax ab événement bu jot ca loola sa dépend selmon ci ñoom seeni taxawaay ci askan wi lee loolu waral seeni message du leneen lu dul buñ leen jàppalee ci seen culture yi ndax ñoom ci seen bopp lu koy nax saayal duñ ci daal di dox moo tax ren ji les jeunes Casamance de Malika ñoo ko daal di waral